Palma ak, banana ak Yal nañu yàlla boole baal ndax jàmm dàkk lu yàlla sàkk yàlla nañ ko buur bi yàlla defal am naa du ñàkk mës naa la tooñ waay na nga ma ko jéggal Bab. Bab. Cari, cari. Cari, dia cari. Bab, yow yow yaay yow yow yaay caga dëgg dëgg dëgg dëgg yaay caga. Yow ku la fekk fi ngay iri ñi lu lay wax. Ah? Ba jaaj, boo waxee ba gis ay nit nga war leen a nuyu ba pare. Du ma leen a nuyu ndax soxlu ma leen nuyu caga yu toll leen laa leen nuyu pap. Xanaa nga rus. Rusal. Rus ko. Yaa ñàkk wërsëg yow père. yow loo wax loo ñàkk wax la ko xañ booy bi laa la bëggoon a may day nekk bi di wax rek booy bi non comprendre loolu c'est que daal benn pièce may teg pièce may teg nag mise en scène bi ngay doxee kon ni nga dugg seen entrée moom moo baax xam nga war a bind hmm. xoola génnaat leen ngeen duggaat moo ne seen entrée entrée bu baax eh, génn jaam ñoo tàkk lu yàlla sàkk yàlla nañ ko buur bi yàlla defal maa du ñàkk mës naa la toll nag nga ma ko jéggal maa ngi àkk yàlla ñu yàlla boole baal ndax jaam ñoo tàkk gi di gamoo Ja, ya, tonen. Tonen. Tonen, Palma aku, banana aku Yang menyuyal boleh bal Berjam mentaku, yang bisa Nek sama jigéen bu baax quoi yéene naa la ko trop mo tax tey ma andi ko fii pour yee ñaan ngeen waxtaan quoi kii doomam la demee ah waaw waaw waaw kon bu ko waxee rek moom man nekkul ku ma jot doxaan la déedéet fii ñëw fii doxaan bari da hmm. waaye man damay bañ isu yaa muy dégg Euh, Jazmi mi dafa toog ak man ni ma da nga gis nga neex ko man tamit nga xowa nga wudlo pa bo xamni dafa jantal pa bu tal bo nga koy wudlo ta am nga ko to mi ngi nii man sa ba ma nettalee histoire bañon na bañon na ne ko man ñoo duma len doxan lolou la ko mu jewon wax nekkul ku ma jot doxaan la daal comme euh, ñoo nga demandé ni da ngaa da ngaa man maa ngi xool bàyyi ma tëdd ak sama njëganaay sama njëganaay su ma tëdd moom lépp mu wax incha allah amul benn problème. Ah, ah, waxal waxu nit ah. Diaz euh, jàpp ni man di ma wax di wax loolu nga jàpp nga may foyee nii si kanamu xale jigéen ñi sama njëgën naay dégg naa leen la bëgg dégg na ko na tek sama njëgën lu mu wax lu ne inshallah mom na la ba na fa numéro am rek. Diallo fa bi li ma dégg ko man lam mbay na noonu bëggul kat da ngay man ma toog leen da ngeen wax ju am solo léegi da ngeen wax ju am solo nga ne bëgguma man maa lax bëgguma da nga dégg sama laaj man bëgguma man dama waxtaan sama njëgënaay sama njëgënaay waxtaan naa moom léegi léegi d'accord na waxtaan naa sama fi mu ni bëgg na so man sori ma sama njëgënaay du sori xanaa ngeen dégg waxin sax mais li nga li nga li nga mujjee ni mënu ko war a njëkkee déedéet man ko ndax yoon sa kan dafa sa sikkin bi sikk yow ku la ne yow yaa sama yaay man di nga génn di nga ko gën déedéet takk muy fanaan sama néeg ba ma koy defal bagage kon man may dund man ah ki kan mooy kilifaam kan papaam kii sama papa mu ngi dund burul dara sa yaay ji gis ma lu ma koy takk fekkee sa xol dafa bon du fii de séeri tay waay xaara xaara xaara xaara xaara je t'aime. moi aussi je t'aime dama ko wax. Ah! Ah! tànk nag xawoon naa nag. non bul ma xool dama bañ. billaay wala gisoo ma xool nga ma. xaaral. xaaral. xaaral. waaw waaw. ah rétroviseur lu mu sa wax dëgg la. man dama laa gis rek lu mu sa wax dëgg la musuma fen rétroviseur a ngi. gis nga. ah xoolal sàkkar yàlla ba. laay la ay reetaan ba. maa ngi yow duroo retaan teg teg. waa gis loolu tax ma dugg rek cëpp. <laughs> ma maa ngi. maam man je rentre. yow da ngay turxul bëggeel fleur ma ci da bu ma ci da may gën naa ko sama papa. sa moo français yaay. jazz. mën naa bàyyi ko nii. jazz. waaw xamal la waxal waay. waaxul booy bi ci biir léegi sori ci man lool yëg booy bi jaas waaw waxo koor lañ nekk waaxul waaw koor lañ nekk waaye lii a ah, araamul yow baal ma ak baal naa la ak yal na ñu boole baal ndax jàmm dàkk lu yàlla sàkk yàlla defal I'm I'm not not Madunya ke musnada tonwa Nanggama ko jaga Yena say say tani man mamatef